proposition de loi boo xam ni ñëkk a yëkkati lañu ñu jublu woon mooy fexe mbiram góor jigéen googu ñu naan ko homosexualité ñu def ko crime ci Sénégal lool yëpp nag tey daanu ko waxtaanee dellu si cosaanal ñaawteef bule ak imaam euh, Mactar Kébé moo jiite rassemblement islamique euh, bu Sénégal di RIS imaam ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalalaat la ci démb ak tey. waaw Seyda maa ngi lay nuyoo di nuyu ñuy topp sa émission bu am solo bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex mm-hmm. defal réew mi tawféex def fi jàmm def fi dal mm-hmm. may ñu aussi ñu wax wax joo xam ne dana doon njariñ ci ñi nga xam ne ñoo koy déglu mm-hmm. jërëjëf Imaam Amin ci ñaan yooyu ñu ngi lay gërëm yow itam ci disponibilité bi ndax saa yu nu la sollicité wax dëgg yàlla nga daal di ñuy may li ñu sàkku kon Imaam ni ma ko waxee mbiram góor jigéen la ñuy waxtaanee euh, du lu bees ci àddina wax naa ko ndax ca jamono yonent yàlla Lóot alayhi salaam euh, alquran mi ngi ñuy nettali ne xew-xew yi amoon na ca ba borom bi tàbbal ab daan ci ñooña ndax mën nga ñoo dikkal ci loolee nga xam ne borom bi subhaanahu wa moo ñu ko nettali ci alquran mu wone ne kon mbiram góor jigéen di homosexuel homosexualité yàgg na lool ci àddina waaw xam nga <coughs> alquran boo ko dee jàng yi nga xam ne mooy wane mbaax ak njub daf koy wane ci façon boo xam ne bii day xiirtal nit ñi ñu dem ci yi nga xam ne aussi mooy sofaan nga xam ne ay phénomène la ki faiblesse yuy dikkal doom aadama daf koy wane ci façon yu bari mën na wane xew-xew yi na mu xewee ak conséquences yi ngir wan société yi ñëw ci gannaaw que ni xew-xew yi aussi mën na xew ci seen biir bu ngeen ko xeexul conséquences yu mel nii wala yu ko gën a tar moom lay wane donc faiblesse yi ak déviation yi nga xam ni mën na dal nit ci dundam booy jàng alquran da ngay gis ne daf koy relater ci ay société yu weesu woon ngir moytuloo ci société yu ñu nekk nii loolu moo am ci phénomène bi nga xam ne moom la ñuy wax mbiru ngóor jigéen nga xam ne alquran moo saxal ni xew na ci nitu yont yàlla loot mu jaaxal ko loot ba mu ñëwee yàlla yónni ko dafa fekk ci aw nitam ay groupe yoo xam ni li naturel dañu ko bàyyi hmm. mooy góor di jëflanteeg jigéen jigéen di jëflanteeg góor ñoom ñu préféré góor ñi nga xam ne dañu am ay privilège am ay dayo am alal dund dund gu neex bàyyi fi jigéen ñi di tànn ay waxambaane yu taaw nu nu nu bàyyi xel ni yeneen bindeef yi nga xam ne boroom bi daf ko bind hmm. te ñuy doll ko ci wàllu sëy mbindeef yooyu muy rab yi bàyyi ma yeeg yooyu mhm. kenn ku ne nature bala yàlla teg ci dolleeku ak bànneexu ci wàllu sëy mhm. yaa ngi ci loolu di ko doxal booba ba tey amul soppeeku ci am mhm. doom aadama nag kom que mooy mbindeef mi nga xam ne ñaar daf ko wër muy xelam muy bànneexam alors ñaar yooyu moo tax muy créer ay déviation yoo xam ne yi mën na ko jural misiba hmm. lot ba mu ñëwee la mu leen jëkka wax mooy wa kaw mi qaala li qawmihi atatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha ahadu min alaalamin yéen lii ngeen di def ni ñaaw téef la woo xam ne wi lu bon lu salte loo xam ne yeena ko fent ci àdduna xeet yi leen jiitu kenn mësu ko def hmm, kon foofa la tàmbalee waa ci ni ko alquran relaté foofu la tàmbalee parce que loolu daf na leen ma sabaqahum biha ahadun min al alamin hmm. mbindee fii leen fi jiitu kenn mësul def ñaaw téef bu mel nii hmm. lii bu ngeen ko bàyyiwul sànjum yàlla dana dal ci seen kaw góor leen ngeen defar seen bopp dem ci jigéen ñi nga xam ne mën ngeen a jaar ci bunt ba ñu lew ñoom lan lañu ko wax dañu ko ne yow ak groupe bi nga àndal jéem a baax gi ngeen di jéema baax ak sell gi ngeen di jéem a sell loolu yenn la concerné ñun bàyyi bàyyi leen ñu ñu nekk ci li nga xam ne ci lañuy ñuy ute bànneex loolu euh, comme ko am mission nga xam ne yàlla la yebal dangay ngay ci sa liggéeyu waxtaan ak yeete ak wan leen musiba mi lan la mën a jur mais ñu néewal ko doole du mooyu du mooyu ko c'est-à-dire wan ko gannaaw mhm. ba bi nga xam ne borom bi mere na leen yontu yàlla luut am ñu ko dikkal doon ay malaaka yor jëmm nit ñoom ba nu gisee loolu ñu ne ñun day lu nuy wër sax am nañu lu bees tey parce que am nañu ay gan ñu fi ñëw di ay waxambaane. Hmm. donc nañ dem foofu faji suñu soxla. ba nu ñëwee xista bi comme ni ngeen ko waxee. Hmm. loo gêné ci gan ñi mu am ay dëkkandoom bëgg leen toroxal. Hmm. mais gan ñoo ñu xamal ko ne lii jaaxalanu parce que ñun suñu mission la ñuy dox si. te sunu mission mooy faagaagal ñii nga xam ne ñoo nekk ci nii xisa bi gudd na mais dama koy dama koy résumé malaaka yooyu nga xam ni ñoom la borom bi yebal bi mu xamee ne phénomène bi mënul continuer te ñii dañuy détruire société Ibnul Qayyim al Jawziya <coughs> dafay wax ne mbon yi gën a bon bokk na ci góor guy jëflanteeg moroomu góoram wala jigéen buy jëflanteeg moroomu jigéenam moo tax li ci wàcce ci sànju boroom bi ak mbugal ci àdduna ak mbugal ci àllaaxira doon mbugal yi nga xam ni mooy mbugal yi gën a rëy hmm. parce que li naturel mooy góor di bànneexoo ci jigéen jigéen ci bànneexoo ci góor goo xam ne gi euh, lew na ko mm-hmm. bu ko defee alors am lu ci jógee loo xam ne lii mooy li yokk àdduna mm-hmm. mais bu fekkee ne léegi ubbi nañu beneen bunt te bunt boobu yokkute du ci jóge dafay mel ni am na yàqute goo xam ne gi gu bari goo xam ne gi moom lay jur mm-hmm. ak yeneen yu ciy jur li dénaturé doomu aadama mm-hmm. ak li ciy aju ci ay feebar nga xam ne boroom xam-xam yi jëfandikoo wérug doom aadama saxal nañ ko mm-hmm. alors yooyu yëpp tax boroom bi mere leen yebal malaaka yi ñu xëy ne nañu ñi ñu jëkk a taseel dañu leen bac rek seeni seeni seeni bët <laughs> tuuru ñu jël dëkk ba dugal seeni laaf parce que malaaka dafa am doole mhm. dugal ko bee mu nekk fa suuf gën a suufee mhm. ñu yëkkati ci kaw dëpp leen ñu jeex benn yoon parce que mbooloo lañu moo xam ne boroom bi dafa gis ne seenu des ci àdduna mhm. li muy yàq moo ëpp bu ñu fi desee li nuy jariñ dañuy yàq mais dootuñu jëriñ. Mm. loolu la borom bi jëflanteeg ñoom. waa Sodom. waaw donc xew-xew boobu bu nu koy jàng. Mm. du nu ko jàng rek romb ne borom bi def nu nettali histoire xew-xewu démb. Mm-hmm. ku ko jànge noonu sa xam-xam dafa gàtt. Mm. alxuraan buy wone ku baax. Mm-hmm. di wax li ko borom bi dig pour ñu jaar ci yoon woowu wane ne képp ku ci jaar lu baax lii mooy li lay xaar ñu roy ko ñu roy ko bu nu wanee aussi xeet yi fi weesu yoo xam ne yi dafa dañu fi jaar nekk fi ci sofaan mu wax ñu sofaan boobu lu mu jur daf nuy xamal ne yéen ñi fi nekk tey ak ñiy ñëw ëllëg ku fi jaar ci jaarin boobu aussi sofaan bu mel nii mun na la ci fekk wala bu ko gën a tar wala sofaan boo xam ne bii du bi nga doon du du li ngay xaar lu neex li ngay xaar doo ko ci am waaye ak yàquteeg sànj borom bi moom la lay jural donc mbon goo xam ne gi jaral na borom bi mu dëpp ab dëkk ba nga xam ne ñi bokkoon ci mbon gi kenn desu fa alors loolu mbon la goo xam ne gi mbon gu jéggi dayalo waaw. Mm-hmm. kon imaam mën nañoo dégg ci wax ji ne tey xeex mbiram góor jigéen dafa nekk faratay ñi nekk ci kaw suuf ñëpp ndax tey yëf yi daj na àddina amul réew mooy dem te doo ko fa dégg euh, taxawaay woo wala ci ñëpp war a am ngir mucc ci xëy na daan yi borom bi joxoon ci alquraanul karim waaw ñëpp taxawaay bu mel noonu la ñu ci war a am ndax euh, li nga xam ne mooy agenda international bi nga xam ne mën nga wax ne depuis 2008 la gën a fés agenda boobu li nu bëgg mooy fexe ba société yi ubbi seeni dig ubbi seeni xol soppi seeni habitude nangu lu mel ni mu nekk ci seen biir loolu nag bu amee jullite ci jiitu waaye nit ñëpp la war ku mu mën a doon koo xam ne kii gëm nga ak mbaax gëm nga jikko gëm nga njaboot gën nga doom yoo xam ne yii dafa am ay valeur yoo war a def ci ñoom alors képp koo xam ne kii loolu moo nekk ci yow lu mel nii nga war a xeex parce que alquran li mu nuy jàngal mhm. mooy phénomène bu mu mën a doon li nga xam ne moom la ci conséquence yoo xam ne yii du neex du yem rekk ci ñu koy jëfandikoo wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa yàlla nee na bu fekkee ne mbir mu ñaaw dafa wàcce ci société nun ñëpp noo wara moytu xeex mbir mu ñaaw moomu ba a wax ne bokk ma ci suma njaboot bokk ci donc mbir moomu concerné wu ma nee na bu fekkee ne sànju borom bi ak yàqu-yàqute mbir moomu li muy def ci société du yem ci minorité bi nga xam ne ñoo koy taxawe waaye day law ba nga xam ne dem na ci société bi yëpp yenent bi jàngal ñu que ni képp koo xam ne kii gis nga li nga xam ne moo tudda munkar mm-hmm. munkar mooy loo xam ne lii jikko nangu ko hmm. xel mu way nanguwu ko tëralinu société nanguwu ko na nga xeex pour loolu dañ fi ci moyen yi nga xam ne yoon tëral na ko nga am moyen yooyu man ko ko xeexe moyen kàddu jàngale hmm. moyen yar moyen artu moyen xirtal autorité yi ñu def démarche bu baax moyen yooyu yëpp ñëpp la war ngir ñu taxaw ngir phénomène bi nga xam ne dañu ko orchestré te ñu ko orchestré di boroomi doole ñu orienté ko jëmee ko ci réewu àdduna bi parce que depuis depuis deux mille huit lañu ñu identifié ay réew. Mm-hmm. wax ne am na juróom-ñaar fukki réew ci àdduna yoo xam ne yi seen tëralinu doxalinu réew ba léegi nanguwul ñu yoonal li nga xam ne mooy góor di jëflante góor wala jigéen di jëflante jigéen réew yooyu nag wax nañu leen puus ñii ñu tiital leen ñi ñu xabtal leen ñi ñu yoot leen di leen xëcc ndànk-ndànk kenn ku ne ak stratégie bi ñu tëral ak yow ba nga xam ne di nga ubbi say bunt li waa àdduna nangu kuréel yu mag yi nga nangu ko ci sa réew mbir nag bu fekkee ne foofu la toll nga xam ne ñun ñëpp noo ngiy gis programme yi ñun ñëpp noo ngiy gis campagne yi alors jàpp naa ne ñëpp ñoo am responsabilité ngir taxaw bu amee ñu taxaw ñu jàppale leen dimbali leen xam ne ñii askan wi yëpp lañuy ñuy liggéeyal mhm. ak mbaax la ñuy liggéeyal mhm. kon leer na ni diine yëpp yi bàyyeekoo ci borom subhaanahu wa taala dañoo dàq mbir mi dañu ko itam ñaawlu léegi imaam ñu ñëw nag ci phénomène bi naka la évoluer ndax euh, ñu ngi woon sànq Sodom ci jamono yonent yàlla Lot wax nañu ni itam malaaka dañu ñëw wëlbati suuf sa faagaagal ña nga xam ne ñoo doon def ñaawteef wa euh, ci li nga xam ana nan la mbir mi judduwaatee ba law tey egsi fi mu toll. xam nga <laughs> bu ginnaaw ba ñu waxee sax affaire Sodom dañuy wax ne ñun suñu yonent. Mhm. ak saxaaba yeeg ñooñu. Mm-hmm. dañu ci am ay jurisprudence yu bëree baree bëri. Mm-hmm. pas yu bëree bare bari sax mais ay jurisprudence yu ñu mën a teg loxo. Mm-hmm. boo boo defee cumul bi nag ci ci tàmbaliwaay ba. dangay gis ne ay atte yoo xam ne yu ñu mën a sukkandiku am na yonent bi wax na. ne képp koo xam ne ki gis ngeen ko muy góor di jëfandikoo góor ni moom. kiy jëfandiku ak ki ñuy jëfandiku nanu faat seen bakkan gannaaw bu preuve yi dajee donc phénomène yooyu naka jekk moo ngi fi woon ci société yi mais nekk ay phénomène yoo xam ne yi yu marginal lay doon souvent du doon loo xam ne lii dafa yaatu dafa ubbeeku ba fës ba fës mhm. ay nit ñooy am seeni faiblesse mhm. alors di ko jëfandikoo faiblesse yooyu réew yu ne fexe nañu ba bàyyi ko xel mm-hmm. di ko utal ay tëralin yoo xam ne yi dana tax faiblesse yooyu du yaatu mm-hmm. bi ñu ñëwee nag ci àdduna bu moderna bi mm-hmm. nga xam ne génn nañu diine ci doxalinu àdduna moo xam diine lislaam la moo xam christianisme la léegi àdduna mujj di dox ci xelu doom aadama ak ay passion ak bëgg ak bëgg-bëgg moo amul fu mu yem wax naa la ne réew yi gën a yaatu bu la neexee sax ci tàmbali nga ne réew yi réew gën bari seen législation la fa mas di ne mooy ngóor jigéen nanguwuñu ko góor di jëflanteeg góor wala jigéen di di jëflanteeg jigéen yow yaa ngiy fàttaliku ci réewu tugal yi ci at yu mujj yi rekk lañu ñu ay benn benn réew di yaxal ci seen législation di nangu lu mel noonu ñu mën ko def ci seen réew ba ñuy tàmbali mbir mi lu salte lañu ko tuddewoon woon bee mu yàgg ñu ne mbir mii day feebar la boo xam ne wala ak matadi goo xam ne gi dafay am ñu mu ñu muy dal ci société ñu leen di wutal sax ñooñu ay yoon yu ñu leen di aare ngir faj leen ñu nekk nit mm-hmm. mais bi ñu demee ba ci at yu mujj yi bu la neexee nga ni ci ñaar fukki at yi lañu ñu commencé surtout depuis loi bi nga xam ne wala proposition bi nga xam ne France ak Hollande def nañ ko ci conseil des droits de l'homme la ñu commencé phénomène bi lañu ñu woon feebar la ñu woon lu ñaaw li nga xam ne ay législation wu àdduna yi daanaka ñoom ñëpp dañu ko dañu ko daw dañu ko bañ ñu commencé di ko tuddee droit xam nga xoolal fa ñu joge ci vice ak kii ba ci droit. waaw léegi réew yooyu am na ñoo xam ne yi ci seeni réew léegi droit la lu normal parce que wax naa ne réew yooyu bi ñu duggee ci modernité modernité occidentale boo ko bëggoon résumé bokk na ci li ko tënk mooy bakkenu doomu aadama amul loo xam ne lii daf koy wutal ay dig ak i frontière bakkenu doomu aadama lu mu xemmem lu mu nangu bu soci bu ci société bi ànd ak moom rek. Mhm. loolu lu mën a dem la. te ñun civilisation yi ñu sës civilisation yooyu lépp lu di lu ñaaw lépp lu di lu bon bu ci àdduna bi nekkee ñoom ñëpp sax yow nga doon kenn cundum mm-hmm. kenn mayu da nga ànd ca ñoom la yastawi alxabisu wa tayibu mm-hmm. walaw aajabaka kasratul xabis mm-hmm. alquran moo wax ne lu baax ak lu bon lu jub lu dëng lu ñaawak lu salte mënuñu yem bu fekkee ne lu ñaaw àdduna si yëpp ñoo ngi ci mhm. yow fexeel nekk ci lu baax léegi ñoom seeni société bi ñu nekkee ci seen mbon googu seen caay-caay googu mhm. nga xam ne ñi ko jàngat wax nañu na mu détruire seeni société ci wàllu social mhm. ci wàllu famille ci wàllu santé même ci wàllu économie ak tëralinu nit alors bi ñu yeggee foofu la ñu bëgg seen seen seen seen seen seen caay-caay googu njaay àlle googu mm-hmm. ñu fexe ba mu law àdduna fan lañu ñu koy jaare ñu ngi koy jaare ci kuréel yi nga xam ne àdduna bokk àdduna ko bokk mm-hmm. Sénégal bu daan dem ci conseil des droits de l'homme mm-hmm. Nations Unies ñaari question yi mooy yi koy gêner ci la ñu koy xabtale ci la ñu koy ci la ñu koy toppee ba tey jii ci la ñu ko toppee. bu mujj bi sax am nañ ci ay éco ba ñu naan Sénégal terewul mbiram góor jigéen. acte contre nature et en public. loola la tere. waaw mu nekkoon position bu yëngaloon réew mi. mu nekkoon position bu yëngal réew mi parce que bu demee toujours ci ñaari question yi la ñu koy sonale. président yu bari it bu ñu fi ñëwee loolu la ñuy jéem a imposer suñu njiitu réew mi tontu président Macky Sall ñu ngi koy fàttaliko. aywa président bu fi ñëw itam yan yi nga xam ne ñoom dañu bokk ci agenda bi. Mhm. ñii dañuy wax ñu dégg leen. Mhm. mooy ñi gën a wow bët. waaw ñenn ñi dañuy wax ci suuf. ñenn nañu dañuy tayle seeni wax ay ay kuréel yoo xam ne dañuy wax ne ay kuréel yu jàmbure lañu. Mhm. bu ko defee ñuy doxal agenda bi seen biir dëkk. Mhm. Sénégal bu demee foofu ci conseil des droits de l'homme xale yi nekk ci mbedd mi lañu koy sonale. Mhm. ak affaire góor jigéen yi. léeg mu am lu mu maye. pour am lu mu téye. waaye ba tey am na foo xam ne fii yàggu fa. ñu gis ne tendance bi aussi ci réew yi nga xam ne mooy réew yu néew doole yi muy réewu Afrique yi tendance bi moo ngi jëm ci ci bàyyeeku parce que réew yooyu contrainte yi nga xam ne am na ci suñu réew mën na am contrainte yooyu amul ci état yooyu bu ko defee réew yooyu commencé nañu di bàyyeeku di légiférer loo xam ne lii day gën a yaatal mbir moomu ci seen dëkk. Mhm. à partir de 2008 la agenda bi gën a précis. Mhm. dañu wax ne juróom-ñaar fukki réew yi nga xam ne seen législation dafa tëj buntu góor jigéen. Mhm. di ko ñaawal réew yooyu àdduna bi war na def lu mu lu lu lu mu man ba ñu fekki réew yi nga xam ne yoonal nañu mbir moom. réew yooyu sunu réew ci la bokk ak réewu arab yi ak yeneen réewu Afrique ak ak Asie même ci biir Europe am na réew yoo xam ne ba léegi xeex baa nga fa dañuy bañ diggante ñi nga xam ne ñooy conservateurs yi boo demee Amérique ba léegi xeex boobu ci xeex yi gën a metti la mm-hmm. ci diggante conservateurs yi ak ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom gis-gisu àdduna mm-hmm. église aussi ba léegi position musul soppeeku ci question bi mm-hmm. mooy nañu ko bañee lañu ko bañee mhm. l'islam bi ak aada réew mi aussi noonu la ko bañee mhm. ku wax ne mhm. aada réew mi dafa xam góor jigéen day day day day wax lu ko neex aada réew mi lu ñu xam nga xam ne ay phénomène la yu fi daan feeñ mooy ay nit ñoo xam ne ñi ci condition yi ñu leen yare dañu teel a jaxasoo jigéen ba tax seen kàddu wala seen doxin di kàddu jigéen walla doxinu jigéen mm-hmm. te ñooñu sax réew mi dañu leen daan xool bët boo xam ne bii du bët bu nu rafetlu mm-hmm. ñooñu lañ daan efféminé ci mm-hmm. kooku kooku phénomène yar la boo xam ne bii nit ku amul sens am foo jaar mën nga mel noonu te ñooñu sax bu ñu tolloo ci bëgg satisfaire seen yëg-yëgu góor alors dañuy wuti ay soxna comme comme comme comme comme ñëpp. Mhm. nga xam ne phénomène bi seen seen da koy da koy yëg rek ci seen ci seen doxal donc loolu la sunu réew ma sa xam. Mhm. adduna bi sax loolu lañu xam da d'une manière générale. Mhm. mais góor goo xam ne gii dafay mel ni ñëpp kenn xamul loo ko xàmmee. sañc kër sax am na ñenn dañuy sañc ah, kër yor njaboot sañc kër yor njaboot. ba pare ci ñàkk xeexak sa sa bakkan nga boyal ko. mu tàmm foo bee nga xam ne léegi li li li naturel mënatu ci am satisfaction mu ngi koy uti ci loo xam ne lii dafa dafa dafa dafa dëpp dafa dafa salfaanoo mm. ak melokaanu doomu aadama mm. alors loolu ay phénomènes yu bees yi nga xam ne modernité occidentale moo ko tas ci adduna bi mm. ngir relation bi góor am ak jigéen ci société yooyu nga xam ne daanaka relation la boo xam ne bi amatul contrôle amatul yaxal nit ci boppam sax prise en charge am demeetul noonu ba nga xam ne mujj na nekk nit ku fragile koo xam ne kii phénomène yi def ko mun a jël hmm. passion yi def ko mun a jël bànneex yi def ko mun a jël alors loolu nga xam ne moo juddoo ci société yooyu loolu la ñu ne nanu ko jaay àdduna bi yëpp hmm. alors loolu jàpp naa ne képp koo xam ne kii am nga tuuti ci looy bañ. Mhm. loolu mënuloo ci ànd donc conseil de droits de l'homme des nations unies boobu. Mhm. ak yenn kuréel yi nga xam ne ay bànqaas lañu ci nations unies ak kuréel yi nga xam ne dañu jàmbure ñoo yor programme boobu di ko doxal. Mhm. ñu tuddee ko agenda boo xam ne bi président xam nga. gis nga léegi seen mandarga. booy jënd booy jënd dara sax. boo amul vigilance. Mhm. tas seen mandarga ci sa dëkk. Mhm. def nañ ko ci fowukaayu xale yi. Mhm. def nañu ko sax ci seen yére. saak yu bari yi nga xam ne nit ñaa ngi koy yor moo ci ne. même modd yi nga xam ne moom la xale yi solo léegi. modd yu ci bari ñoo ko tas. li ñu bëgg mooy yoot ndànk-ndànk. ba installé mbir mi mu di réalité ci suñu société yi mhm. bu ko defee ñu ne lii réalité la ci seeni société mënatu leen ko bañ mhm. utal leen ko ay yoon yoo xam ne yi dana ko nangu mhm. am na ci sax ay bunt yu ñu bëggoon tijji bu yàggul te ba léegi tëjagul muy fexe ba jaar ko ci tàggat xale ya njàngame waaw éducation foofu laa doon bëgg a ñëw ci programme yeeg yëpp ñu ngi ciy yoon waaw ñu ngi ciy yoon alors télévision yi programme yu bari léegi boo xoolul sa njaboot yu bari ci télé boo xoolul sa njaboot ñu wan leen surtout ci dessin animé yi nga xam mm-hmm. ne xale yi dañu koy topp mm-hmm. ñu wan leen ci loo xam ne alors boo deful ndànk dana installé mbir mi ci seeni xol mm-hmm. ba bu nu màggee màggaal moom loolu nag société bu responsable am histoire am jaar-jaar am démb am mag yu ñu am am ambition yu ñu am aussi ngir développer suñu réew génn ci situation bi ñu nekk ni alors mënuloo bàyyi caaxaan yu toll ni muy installé wu ci sa biir réew mhm. société yëpp même bu dul mhm. diine diine diine bu ñu ko tegoon ci suuf nu xool rek ñun ambition yu ñu am ngir développé suñu société mhm. alors sàmm suñu wéru xeluk ndaw ak seen i jikko ak ak seen seen i seen man-man ngir développer suñu réew alors ñun loolu dañu dafa ñëpp question bi warul doon question boo xam ne bi dañuy wax ne kii fi la féete kii féetewul fële mm-hmm. mais la boo xam ne bi réew mi dañ ci war a am unanimité mm-hmm. ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy jogandoo wax ni sunu réew lii du fi dugg mm-hmm. loolu nag tekkiwul ne dafa am ko nu bunduxataal bunduxataaluñu kenn waaye du ñu jëlee am njàng ci àdduna boo xam ne bii ku ne xam na ne bu dee gis-gisu àdduna bu dee jikko bu rafet bu dee taxawaay bu rafet alors bu nu jàng ci nun nun amuñu lu nu jàngee ci ñoom mm-hmm. donc loolu mooy mbir mi nga xam ne ñun ñëpp noo ci war a ànd xeexandoo ko même bu fekkee ne am na kuréel bu ko ci kuréel boobu société bi lay liggéeyal mm-hmm. société bi daf ko war a renforcer dooleel ko orienté ko même toll nañu foo xam ne fii institution yi ñoo ko war ñoo ko war a jël mm-hmm. wane ci position yi nga xam ne suñu autorité yi dégagé nañu ko ci wax mm-hmm. ñu wane ko ci démarche mm-hmm. imaam ndax nag amoo tiitaange ngir réew mi ndax institution yooyu ngay wax bu ñu demee ca comité des droits de l'homme bu Nations Unies gis nañu ni ñuy yolomalee yëf yi maa ngi lay wax sànq tontu wi nu fa mujjee joxe ba mu yëngaloon réew mi ne Sénégal dàqul birom góor jigéen li mu bañ mooy acte contre nature te en public boobaa day nekk attentat à la pudeur gis nañu itam ni ñu ñu heurtelee sànq wax nañu yenn fowukaay yi xale yi yenn programme télé yi waaye ba ci ñam yi ñuy lekk léegi daanaka boo seetloo yu ci bari da ngay gis seen ay couleur ñu defee ko noo xam ni dañuy mel ni ñu ko làq li ñu ci jublu wax nga ko mais euh, boor bu ne ñu ñu fay wutee euh, mu am nag malheureusement ci réew mi xëy na ñoo xam ni jàpp nañu ne dañoo war a tolérer yëf yi ba ci ay ay kilifa da ngay dégg ñu naan jotewuñoo yow dara ku ne na nga dund li ngay dund buñ deewee borom bi àtte ñu ndax tiitoo Sénégal jamono yi ñu jëm ak ni ñu àddina ërtalee ci mbir mi ñu xaw a bàyyeeku tuuti. waaw jàpp naa ne tiitaange moom lu war ñëpp la. Hmm. wax naa ne agenda bi ñi ko yore dañu am doole bari pexe. Mm te ñun suñu réew yi dañu fragile malheureusement ñaareel ba aussi dañu mën a toppandoo. Hmm. xam nga bunt bu bi bi njëkk bi ubbi ñag bi. Hmm. mooy convention boo dégg ci àdduna bi mm-hmm. à peu près mën nga wax ne sunu réew signé nañ ko nañ ko mm-hmm. ay convention yu néew ñoom lañu ñu wul mm-hmm. convention yi nga xam ne dafa jëm ci njaboot jëm ci famille yaxal nañu ko mais yemuñu ci yaxal ko dañu wax na ñun kàddu gi moom muy sunu souveraineté bi nga xam ne noo ko moomal sunu bopp di wax ne sunu réew nii lañu ko bëgg a doxale bu nu yeggee ci déggoo ne sunu néew li sunu réew nii lañ ko war a doxale lii mooy tër yi nga xam ne moo koy aar di ko sàmm dañu wax ne tër yooyu li nga xam ne moom lañu ñu ci biti mm-hmm. moo féete kaw sunu tër yooyu c'est-à-dire suñu tër yooyu bu bu waroo. Hmm. ak convention yi nga xam ne signé nañu ko waa adduna bi. Hmm. alors suñu réew dafa war a fexe benn législation dëppoo ak li nga xam ne moom lañu ñu waa adduna bi. Hmm. alors loolu bunt la boo xam ne. dafay tax suñu réew ñu xoj ko. du ci question bi rek. yeneen yu bari mais question yu bari. suñu réew. ñoo ko xoj naan ko da dëppook li nga xam ne moo nekk ci convention yi nekk ci àdduna bi naka dëppoog législation mm-hmm. loolu tam bokk na ci problème yi mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy teewal ci kuréel yi souvent bu ñuy dem agenda yi nga xam ne moom moo leen di yóbbu réew mi bu ma nee réew mi waxuma autorité yi waxuma institution yi. askan wi askan wi. Mhm. du ñu xam bu ñuy dem lan lañ leen yebe. Mhm. bu ñu dellusee aussi du nu rendre compte askan wi. Mhm. dañuy toog ba situation am rek kooku nga xam ne moo ñu teewaloon ci nga xam ne mooy conseil des droits de l'homme ba ñu ba ñu gisee tontoom muy daw ci yenn kuréelu jo joxante xabaar yi mm-hmm. ci la nuy dooroo xam ni lu mel ni am na ku ko wax ci suñu tur mm-hmm. ñu bari di jéem a xam kooku kan la mm-hmm. fekk du loolu mooy li am importance ah. waaye li am importance mooy ñun ki ñu jox suñu kàddu muy yebale koo xam ne kii ab liggéey moo ko yóbbu ci poste ba mu ne kooku buy dem la mu fay wax dafa war a refléter li nga xam ne mooy yëg-yëgu réew mi li nga xam ne mooy gëm-gëmu réew mi bu ko defee loolu jàpp naa ne aussi ci liggéey yu ñu war a liggéey la ba nga xam ne bu ñuy dem ci biti dinañ fa dem ak demin bu baax mais yemuñu foofu institution yi nga xam ne ñooy joxe ndimbal ci àdduna bi te nu suñu financement de développement mm-hmm. ñu teg ko souvent ci li nga xam ne dañu koy jot ci biti mm-hmm. institution yooyu aussi bu ñu ko waxee ci kaw ak bu ñu ko waxul ci kaw mm-hmm. léeg-léeg bokk na ci li leen di sawarloo nga nekk en conformité ak ñoom li ñu gisee àdduna loolu tam tax na suñu réew fragile ci question yu ne loolu nag boo ci boolee ONG yi nga xam ne at yi rek lañu ñu commencé. Mm-hmm. ci ci ci groupe yi nga xam ne ñooy liggéey ak ONG yi. Mm-hmm. ñu commencé di bàyyi xel bu baax a baax a baax yenn programme yi nga xam ne ñoo ngi koy jëflanteeg waa réew mi. Mm-hmm. bari na fi ñoo xam ne agenda bi daanaka li ñu ciy dugal ci koom ci ay kuréel ngir ñu tasal leen seen business alors loolu lu lu lu lu lu lu bari la hmm. loolu yëpp tax na effectivement kuy seetlu da ngay gis ne mën nga am tiitaange hmm. surtout nag bu fekkee ne position de fermeté yi nga xam ne dañu ci war a déggoo ci réew mi ñun ñëpp déggoowuñu ci hmm. alors loolu day andi mën na andi jeexi jaaxa te bu andee jeexi jaaxa suñu réew day fragile doo xam fan la ñuy toll ba nga xam ne dinañ ñu cëkkatal mm-hmm. ba nga xam ne dinañ jël ay décision yu baaxul mm-hmm. ah ñaareel ba mooy ñi nga xam ne ñoo toog ci yenn tooge nii ay post yoo xam ne dañu fay liggéeyee léeg-léeg kenn du leen kenn du leen tàggat mm-hmm. tabax leen ba yenn ngëmu yi mu am ci ñoom bu ko defee mën na yombal yu bare bari yoo xam ne yi dañu ko fay jaaral ci doxalin xam nga bi passé nii bu dul woon ak syndicat yi nga xam ne teewoon nañu ci jotaay yooyu. Mhm. jàpp naa ne mënoon na am loo xam ne lii pour dabaatal ko dootul yomb. léegi nag loolu ñuy wax ci affaire droit nit ak vie privée mhm. ñun nekkuñu ci droit nit ak vie privée mhm. ñun noo ngi ci ay orientation yoo xam ne dañu bëgg mu nekk orientation wu société bu fekkoon ne daf ñu dañu dañu dañu toog fi ñu toog rek muy ay phénomènes yu nit di def. Mhm. phénomène yooyu dana am yoon yu ko régler. Mhm. mais léegi dañu jaamaarloo ak orientation wu société ak i programme yu ñu jëmee ci société. Mhm. dañu gis nag programme yoo xam ne dañu ko jëmee ci société te ñun ñu xam programme ñun ñuy liggéey ci yar ak defar nit. ñu xam programme ni mu efficace ci long terme. législation ni mu graawee ci soppi doxalinu doom aadama ci long terme mhm. alors du ñu toog di wax ni alors loolu dund privé nit la duñu ci agir mhm. ñun agir ñu ci dund privé nit noo mhm. ngi agir ci orientation yi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox suñu société organisation sociale modèle dundin bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tabax législation yi nga xam ne moo ko war a saytu nga xam ne gis-gisu prévention la pour lu sori mm-hmm. alors ci loolu la nit ñi di wax waaye identifié wu ñu nit di dem ci moom naan ka nii nga mel walla meluloo noonu mm-hmm. nun noo ci xeex boo xam ne bii ñi ko yenu xam nañu fi nu jëm mm-hmm. nun itam xam nañu ñoom fan la ñu jëm alors institution yi askan bi la fi newal ku ñu jox pouvoir askan bee la jox pouvoir alors askan bi bu wanee ne fii la bëgg dem lii la bëgg alors loolu ñi nga xam ne ñoo yor kàddu waruñu def loo xam ne lii dafa waroog li askan bi bëgg mhm. donc effectivement dafa laaj ñu ñu jaaxle mhm. parce que programme bi dafa rëy waaye dafa laaj ñu am xel mu dal mhm. parce que ci suñu biir réew am nañu argument ak yëg-yëg yoo xam ne yi mën na gàttandu lu mel nii bu fekkee ne benn leen nañu suñu kàddu mhm. waaw gis nañu taxawaay wi ci kilifa diine yi am euh, ku mel ni sëriñ mun Muntaxa Mbàkke ak euh, kàddu yu mu ci mujjee waat yëkkati muy lu leer nañ waaye ndax euh, yow tiitaange bi imaam bokkul ci li ko yokk keroog ba assemblée nationale nga xam ne fa la ñuy naseeg di nocc lépp lu jëm ci wàllu loi gàntale proposition boobu ban yëg-yëg nga am ci keroog décision boobu ñu jël. waa xam nga suñu kilifa yi. moo xam ca Cheikh yal na ko yàlla dolli wér bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg amiin sëñ Babacar Sy bu sëñ Mansour ñaari ndaje gàmmu yi yëpp ci kanamu kilifteef gi nga xam ne moo yor intérieur mm-hmm. ci la wax ci phénomène bi wax boo xam ne bii bu leer la mm-hmm. ñoom ñëpp à l'unanimité xalif yëpp mm-hmm. bi nga xamee ne kuréel bi dox mbir mi di ànd sàmb jikko yi dem na gis leen mhm. wan leen ne nun kat am nañu tiitaange ci sunu réew dañu war yokk ñàkk bi nu ñàkk sunu réew mhm. ci ubbi ay buntu luwaa bees yoo xam ne yii day gën a réew mi gën a askan wi mhm. ba nga xam ne lii du mën a yëgse ci njaboot gi ñoom ñëpp dañu ànd signé kayit googu nga xam ne moom lañ leen di sàkk mm-hmm. ba nu koy déposé ay député jël ko volontaire ne ñoom lii ñor na leen dañu ci ànd mm-hmm. ñu bari ci ñoom yebal seen njaboot ñu ànd ak kuréel gi déposé ko mm-hmm. alors li nu jàppoon mooy assemblée nationale amoon na opportunité wan waa réew mi ne yéen laa fi newal bu ko defee lii nga xam ne moo leen jaaxal mu dalal ci seen xel ñu ubbi débat parce que société bu tolloo fenn fi yenn phénomènes yi dañu ciy ubbi débat waxtaane ko proposition de loi bi mu jógee li ñu doon xaar ci ñoom mooy mu doon opportunité boo xam ne dinañu won waa réew mi que ni lii leen jaaxal nun ñi ngeen jox seen kàddu jaaxle bi ñu ci am ngeen ci am wala bi ngeen ci am ñun moom lañ ci am donc lu ñu féetewoo te mooy luwa nga xam ne luwa askan wi moo ko moom te askan wi wane na boppam wane na kàddoom ci sondage yi nga xam ne nit ñu def nañ ko alors bu fekkee ne ñoom ngay tëralal yoon alors jàpp naa ne li gënoon a jub li gënoon a jaadu mooy ñu ubbi waxtaan ci mbir mi ba nga xam ne dinañu dalal xelu waa réew mi renforcer suñu disposition yi nga xam ne moo nekk ci suñu législation ba nga xam ne mbir mi dinañ ko gën a ñàkk waaye wax dëgg yàlla lii nga xam ne moom lañu def keroog alors day gën teeyal xelu nit ñi nga xam ni dañu gis ni tubaab bi jekku nañu à travers suñu ay institution mm-hmm. ñimewuñu jël décision yi nga xam ne moo tolloo man sax li ma gis mm-hmm. mooy déclaration bi nga xam ne moom lañu génne génne liñu ko waa réew mi de mm-hmm. parce que ay proposition de loi yu du jeex moo nga tëdd ci bureau assemblée nationale kenn waxu ci kenn xamul proposition de loi yooyu fan la mujj mais bii ak déclaration bi ñu génne man dama jàpp ne déclaration boobu réewu tugal yi lañu ko jëmee mm, pour dalal xelu ñooña pour dalal xelu ñooña di leen xamal ne lii ñu bëgg mu jaar fi waaw société baa ngi koy wax waaye ñun du yàgg-yàgg ba mu jaaree ci ñun. waaw xam nga tam ba nu yëkkatee proposition de loi bi euh, LGBT yi dem nañu jéebaane ji Sénégal. wax reteet nañ ko fu ne. waaw. wane ne d'ailleurs am na ñoo xam ne sax boole nañu ay ay ay. ay kilifa ba dootuñu mënati dugg Europe. waaw waaw te te te ñooñu wax dëgg yàlla seen soxla ci Europe bariwul. Mhm. am na ci ñoo xam ne dinañ dund ba dee. duñ fa dem. bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ndakaaru gi do doxu bokk moo tax mm-hmm. ak ak matal wala rek wër na waa dëkk bi safoon nañ leen mm-hmm. mais fa ñu toog mun nañ fa toog ba dajak seen borom mm-hmm. te duñu duñu duñu soxlal kenn dara te réew mi sax ci boppam bu taxawoon taxawaay bi mu war a taxaw ñu am orientation politique yi ñu war a am jàpp naa ne réewu tugal yi ñooy daw ci suñu gannaaw waaye ñun duñu daw ci seen gannaaw parce que wóor na ma ne li ñu leen di jariñ mhm. tolloowul ak ñoom li ñu leen li ñu nuy li ñu nuy jariñ bu dee amal na nu njariñ voilà <laughs> donc donc donc déclaration boobu man man lecture bi ci am mhm. mooy waxuñu ak waa réew mi dañu bëgg a dalal xelu ña nekk ci biti mhm. xamal leen ne position de fermeté yi ñu war a am ci question bii dinañ ko am mooy ñiy wax ni dinañu wax waaye ñun duñu yaxal lu waroog li nga xam ne lii mooy luy dox ak lu ci mën a xew mm-hmm. loolu benn jéego bu ndaw la mm-hmm. société ak orientation ak doxalinam alors moo xam tey la mm-hmm. moo xam suba la moo xam dinañ fekk wala duñu fekke xanaa ci yeneen bunt mën nañ ñu sàgganloo ba yeneen bunt yi duñu ci bàyyi xel waaye buntu yoonal jàpp naa ne dootuñ ci dellu gannaaw bu ci yàlla àndee te projet de loi bi ñi nga xam ne gëm nañu ko yenu nan ko te kilifa yi combat bi jeexagul jàpp naa ne fekki fan dinañu dégg ay kàddu yu ci jóg ngir di renforcer ak di sàkku mhm. mbir mi ñu jëmmal ko ñu teg ko fa nu ko war a teg mhm. donc li ñu jàpp mooy assemblée nationale encore une fois mhm. moo rate li ñu doon xaar ci moom question bi rek mënoon na tax yu bëree bëri yu weesu nit ñi jéggal ko ko mu réhabilité boppam ci société bi mais wanewaat na encore une fois que ni lii rek la mun a def mooy amul autonomie ba mu war a am amul courage bu tolloog ba mu war a am amul sax yëg-yëgu xool société fu mu toll ak doxalinam ma gàttandu phénomène yu bari mm-hmm. alors xool askan bi mais jàpp naa ne ñoo ngi fi ngir beneen agenda mm-hmm. loolu aussi lu réew mi di bàyyi xel la surtout soreyatul ñuy dellu ci beesalaat kuréel yi mm-hmm. jàpp naa ne yooyu ci jàngit ñi nga xam ne dinañ ko jàng. Hmm. bu ñuy dem ci beesalaat kuréel yi. ci élection. ci élection. Hmm. question yu mag yi nga xam ne question wu société la ñan ñooy ñu koy yenu. Hmm. ak ñan ñoo ko dul yenu. ak sunu taxawaay ñun par rapport ak institution yi. alors yéen jéego yu bees. la ñu ci war def mhm. alors yooyu question yi dimbali nañu mhm. ñu am ci jàngat bu baax mhm. Imam Mactar Kébé fi ñuy jeexalee rek mooy ndénkaane wan ngay yóbbante euh, way jur yi surtout ak ñi nga xam ne ñoo yar ay jàngalekat ngeen da ngeen di yar tey gannaaw assemblée nationale moom ni yëf yi demee ni ñu ko gisee mënuñu caa wékk yaakaar ñu ngi ñuy ërtale itam ci boor bu ne ñoom ñu yor agenda bi tey ban taxawaay la ñu war a am weesu na jullit ak chrétien mais doomu aadama bi nit mi nga xam ne nite na war a taxawee ci moom ak njabootam xëy na ba mën a gàttandu yëf yi mën a itam euh, xeex ko ci fi mu toll. xam nga ordre ordre mondial bi ñu bi ñuy bëgg tabax nii dafa bokk ci lu koy tabax nan la ñuy fexe ba daaneel famille bu nu daaneelee famille alors yii ci ci ci ci jumtuwaay yi ñuy nasaxale famille daaneel ko bu ko defee ñu ñu jekku njaboot gi def ci ñoom lu ñu war a def ci ñoom. Mm-hmm. donc message bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kenn ku ci ne yëgaat sa responsabilité ci sa njaboot bañ ko tayle benn kuréel yar bi nga xam ne moom nga war a yar sa njaboot bul ko bàyyee kuréel boo xam ne bii bu mu mën a doon di nemmeeku xale yi di def ci ñoom jikko yuñ ci war a def di def ci ñoom valeur yi ñu ko war a def di yërndu kuréel yi nga xam ne moom la fi réew mi def ñuy jëflanteel xale yi kuréel yooyu benn bu ci ne ñuy natt lan lay def ci moment bu ne du ni mu mel du mu tëdd rek lay tëdd kuréel yi de temps en temps dañu leen di sàcc dugal ci seen biir loo xam ne li léeg sax duñ ci def attention làq ci ay mbir làq ci ay mbir bu ñu ci laa bu ñu ci laa def attention fekk weesu na mm-hmm. bu ko defee kenn ku ci ne sa njaboot ni nga bëgg ñu mel ko nga defal ko sa bopp mm-hmm. mooy nga jiital ci yarub diine mm-hmm. jiital ci aada yu positif mm-hmm. ci réew mi jiital si jom ak taxawaay ñu xam seen identité bu ko defee ñu accompagner leen bee bu nuy màgg fekk na am na yoo xam ne yi weesu na ci ñoom beneen bi ndénkaane la boo xam ne bii moo ngi jëm ci kilifteefu réew mi. Hmm. nga xam ne bu mu ne kilifteefu réew mi mooy ñu yor institution yi mooy ñu yor dogal président ba ci suuf. Hmm. mooy réew mi am na lu ñuy xaar ci ñoom. Hmm. réew mi lu ñuy xaar ci ñoom mooy qualité gi ñu am ci ñoom. ba dénk leen seen kàddu nga xam ne lu nu lu nu yaxal. nit ku bëgg ak ku bañ dana dal ci sa kaw. nu bañ a yaxal loo xam ne lii day gaañ askan wi. ñu xam ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci askan bi di wax ñu ci baree bari ay nit lañu yu am jaar-jaar mm-hmm. yu fekkee fekkeeti mm-hmm. yuy jàng tolluwaayu àdduna bi ak phénomènes yi ñooñu li nuy wax ñu bàyyi ci xel mm-hmm. waxtaan ak ñoom ba déggoo ci yoon woo xam ne wi ñun ñëpp dinañ jël sunu doole jubale ko ci benn jubalewaay hmm. te jubalewaay boobu mooy aar askan wi hmm. mooy sàmm ko hmm. bu ko defee ñu am jotu tabax suñu réew ñëpp def ci seen loxo ba nga xam ne dinañ ko soxali ci diir bu gàtt yii daal mooy message yi nga xam ne bu ma sañoon mu mu mu mu mu yàgg ci ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba nga xam ne lii nuy ragal ci réew mi du fi yëgsi yàlla dana ko gën a ñàkk taxawaayu waa réew mi aussi danañ ko gën a aar mhm. jërëjëf Imam Mactar kebe njiital rassemblement islamique du Sénégal amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi rafetlu tam waxtaan wi ak uh, ni nga ñu ci jox nii xabaar ak i digle ñu lay gërëm bu baax a baax bàyyi la nga tàggatoo rek ci lu gàtt ak uh, ñi la doon. Ah, maa ngi lay maa ngi lay gërëm di la ñaan yàlla mu defal la tawfeex. amiin. liggéey bi nga xam ne seen kuréelu rajo bi moo moo koy moo ngi koy def yàlla na yàlla def kàddu gi mu jëm ca kaw ba ñëpp dégg ko ba ngeen bokk ci kuréel yi nga xam ne dana gën a dëgtalu mm. lépp loo xam ne lii mooy doole buy doxal kuréel yàlla na leen ko yàlla defal yàlla sàmm nu aar nu ba bu nu waree jokkaloo rek mm. mu yombal jokkaloo bi nu wax loo xam ne lii dana jariñ askan wi amin amin jërëjëf Imam Mactar Kébé ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Imam